maa ngi lay nuyu di la jaar bu baax a baax a baax a baax waaw di la di bu baax waaw merci beaucoup merci beaucoup ci lépp euh, question bi waaw mooy la crise des années trente crise des années trente mooy li ñuy wax c'est une crise de surproduction surproduction maanaam à l'époque dëkk yi muy États-Unis euh, muy euh, les grandes puissances économiques européennes muy certaines puissances asiatiques années trente yi donc dañu doon produire en grande quantité maanaam tey les bien et les services euh, seen industrie lu mu doon tourner dafa doon tourner en plein régime lu ñu doon jaay ci actif financier dafa doon bëri maanaam tey boo xoolee économie bi dañ ko kii ba mu créé benn bulle maanaam tey ñu ñu doon produit dafa bëri bëri comme damay joxe exemple jamono bi Allemagne bu géant économique euh, de de l'automobile ñu defal un milliard de voitures exemple laa lay jox Allemagne defar un milliard wala dix milliards de voitures en un mois mu war ko bëgg a jaay boo xoolee jamono bi ne àddina bi tëddee économie yu bëri ñu ngi am problème ak yooyu noonu nit ñi jafe-jafe ñu ngi gën a métti inflation am oto yooyu noonu bu amul ku ko jënd tey coût investissement bu ñu def pour pour euh, tabax maanaam loolu nga mel ne tabax pour defar un milliard de voitures mais bu ñu jaayul oto yooyu noonu économie boobu day daanu parce que dañuy investir dara pour xaar mu am retour sur investissement bu duggul sa économie day daanu donc tey looloo daloon euh, les états les États-Unis euh, certains euh, pays puissance économique européenne dañu newoon en surproduction seen économie dafa doon tourner ba mu ëpp maanaam lu ñu doon defar dafa bëri bëri bëri ba derrière ñoom ñu ñu waroon jaay seen production boobu noonu dëkk yooyu noonu yëpp c'est des pays c'est des états yoo xamante ne où les revenus maanaam nit ñi citoyens yi seen pouvoir d'achat dafa faible de trop donc seen production boobu noonu dafa dem ba yeneen amul ku ko jëndati bu ñu amul ku ko jëndati mais loolu de indi krach boursier parce que ci bourse la ñuy jaayee les actifs maanaam bourse loolu lay njëriñ boo déggee ñu ne bourse de Wall Street bourse de de de de de Paris ainsi bourse boobu noonu. c'est un marché d'échange fu ñuy jaayee ak jënd boo amee tey sa entreprise nga créé yow par exemple Boucher nga créé sa entreprise boo xamante ne yaa moom cent pour cent des actions tey nga soxla ne sama entreprise bi dama bëgg a libérer quelques actions nga bëgg a jaay vingt pour cent da ngay dem ci bourse bi foofu ngay def appel offre gars yi ñëw mu am chinois bi mu xool ni sa entreprise activité bi ngay def ñor na ko ni mun na ci am xaalis mu investir maanaam ci bourse lay jaar mu mun a jënd des des des des actifs yoo xamante ne c'est sa entreprise donc loolu noonu moo doon am jamono boobu dañuy créer ay entreprise def ay affaire nit ñi di jënd ay actifs nit ñi di investir affaire bi di jóg mais bu ñu demee ba instant maanaam jëndkat yi la demande n'a pas suivi donc amoon na offre bu bu faramineuse mais malheureusement la demande n'a pas suivi loolu moo c'est ce qui a conduit à l'effondrement euh, l'effondrement de la bourse de de Wall Street moom moo indi moo par conséquence loolu provoqué euh, cette crise parce que ñu doon endetté wu à l'époque sur endetté wu à l'époque euh, pour pour dans la nekk dans la production di defar ay biens bu ñu jaayul dañuy am problème pour rembourser les banques parce que lu ñu endetté wu lu ñu leb pour mën a jaay pour mën a jaay leb nañu defar def euh, euh, investir defar mais mënuñu jaay donc bu ñu mënuloon jaay mënuñu fay les banque donc banques yooyu noonu ay actionnaires ñoo ko moom banques yi ni gis nii yëpp ay nit ñooy jël seen xaalis di ci investir ñuy ñu defar banque donc actionnaires yooyu noonu vie que ñoom dañu ci dugal seen xaalis te gars yi ni ñu jël nañu xaalis boobu jox ko ay nit pour ñu eh, ñu produire comme ñooñu amuñu amatuñu capacité de remboursement parce que jaay ñu ñële dañuy perte seen xaalis donc loolu mooy conduire à une crise de liquidité mooy dëkk bi day dem ba yenn instant économie bi day taxaw xaalis dootul am euh, voilà donc euh, loolu moo indi la crise globalement des années trente donc ci crise année trente boobu noonu euh, lu mu jur mooy lu mu lay wax noonu rek maanaam indi woon na tension sociale yu mag àddina bi période boobu jaxasoo na États-Unis bëri woon na ay manifestations yu bëree parce que Euh, vu que économie dafa taxoon dafa am licenciement yi mag parce que crise économique loolu lay indi parce que su entreprise yi doon recruter ay nit ñi liggéey vu que jaayatuñu vu que seen affaire euh, maanaam commerce bi dafa doxatuloon ils étaient obligés ñu def ay licenciement ah ay licenciement yoo xamante ne en masse ñi libéré seen ouvrier yu bëri donc ñooñu boo libéré ay ouvrier c'est des gens ñoo xamante ne ñu doon am salaire ñu am pouvoir d'achat liggéeyatuñu dañuy dem toog bu ñu demee toog day métti parce que coût de la vie day ñëw seen kaw donc ñu doon loué ñu noonu ouvrier yi noonu ouvrier dootuñu lañ fay le loyer donc entreprise les sociétés immobilières yi si newoon ñun ñëpp ay daanu parce que du ñu am nit buy ñëw loué donc économie chaîne la tey bu ñu licencier nit mu doon fay euh, location fenn te les agences immobilières dañuy doon tabax bu njëkk ba ñoom tam dañuy doon investir lu bëri tabax ay immeuble pour louer ko ay nit yoo xamane ne ñuy liggéey pour mun leen fay des gens qui ont des capacités euh, un pouvoir d'achat de se payer un appartement de ñoom les les nan sax euh, les agents immobiliers tey ñu doon tabax loolu ñoom tam dañu dem andetewu ci banque yi pour mun a ñëw tabax donc vu que dafa amoon tension maanaam vu que dafa amoon chômage bu métti ñu dëkkoon ci immeuble yooyu noonu yëpp kenn loon fay donc ñoom tamit aussi vu que ñiy ñu loyer dañuy daanu donc économie noonu lay toppee c'est maanaam buy yéeg chaîne bi day dem day tourner par échelle la ñu day yéeg kii mooy dépendre ci kii kay dépendre ci kii ainsi mais bu daanu amee bu crise amee effet domino lay nekk maanaam tey ku nekk ci kaw banque yi la société financières yi euh, entreprise yi euh, désormais état yi et après état yi c'est les entreprises euh, les entreprises après ñun les particuliers ainsi de suite noonu lay wàccee wàccee wàcce parce que crise bi tamit day tax ba état yi fu ñu doon dem di leb dootu ñu fa mën a dem leb parce que société financière yooyu tam dañuy am problème état yi entreprise yi ñu doon imposer seen entreprise locale yoo xam ne dañu doon fay impôt entreprise yooyu dootu ñu mën a fay parce que seen liggéey dafa taxaw mënul suñu recruter donc état bi dina am problème pour mun a prélever de l'impôt sur les les les sociétés là parce que sociétés yooyu amatuñu chiffre d'affaires boo leen di permettre tey ñu mun a fay impôt entreprise yooyu leneen la ñuy def tamit dañuy licencier leurs employés employé seen employé tamit ñoom dañuy nekk au chômage donc duñu am pouvoir d'achat dootuñu mun a jënd donc àddina bi foofu la tolloon léegi euh, ni ñuy def ba génn ci à l'époque c'est la création du FMI crise année 30 yi moo tax it ba FMI bu ngeen di gis nii mu juddu moo ñëw pour réguler loolu maanaam pour fexe ba àddina bi dootul dund crise yi mel noonu donte crise boobu noonu amaat na en 2008 bu ngeen di dëgg avec euh, aux États-Unis tamit encore la gën a déclenché avec la banque Lehman Brothers bu ngeen doon dëgg donc yooyu noonu yëpp jotoon na fi amaat mais économie tamit noonu la cycle yi les systèmes économiques sont nés pour mourir comme lépp lu fi jiitu day dee léegi dafa am ay date c'est sur trente ans quarante ans système yi dañuy juddu àdduna bi muy àddina amoon na ay systèmes yu bëri yu fi newoon euh, ñu ngi commencé woon ci système étalon or ñu jugee ci système étalon or ñu ñëw ci système gold exchange euh, système bu après bu ñu ci jugee ñu ñëw ci système Bretton Woods Bretton Woods mu dee Bretton Woods bu mu dee léegi fu mu toll nii ñu ngi ci système boo xamante ne tey système offre demande fa ñu toll mooy système de taux de change flottant foofu la ñu toll donc système yi noonu la bii tamit dina mës a dee parce que dafa am durée de vie. waaw monsieur maa ngi lay jaar bu baax. waa question bi tamit baax na mooy les termes économie fu ñuy nattee. Euh, niveau de développement euh, dëkk yi waaw dañ leen di classer en fonction ñoom fu ñu toll léegi euh, ci économie économie d'abord dëkk yi ñu ngi leen di nattee ci seen PIB mooy richesse bu ñuy produire seen dëkk noonu la ñuy nattee dëkk yi mooy produit intérieur brut la ñuy nattee dëkk yi et en fonction de ce PIB ci la ñuy xool ñu ne ci puissance économique la ou pas donc ci PIB la ñuy natt loolu moo tax foofu dinaa la ci jox exemple Chine tey mooy première puissance économique mondiale mais boo demee tey ci développement notion développement tel que li ñu ko décrire les objectifs de développement Chine du pays développé c'est un pays émergent donc tey économie noonu la ñuy classer état yi pour xam état bu ci nekk fan la toll ci niveau développement parce que développement processus la mooy da ngay commencer ci nga ñëw sous-développé pays pauvre am balaa boobu sax am na pays pauvre très endetté moo gën a dee pays pauvre très endetté pays pauvre pays euh, en voie de développement ainsi de suite noonu lay demee pays émergent pays développé boo gisee ñuy classé loolu c'est pour natt dëkk yi fu ñu jugee ak fu ñu war a jëm mooy l'étape finale mooy le développement léegi terme yooyu noonu yaa ngi wax Henri euh, Truman euh, ci benn discours am la indi pays yooyu am na ñuy wax nord sud parce que boo xoolee ni àddina bi toll globe bi nu mu nu mu bindoo boo xoolee pays développé yëpp mooy nekk pays yi gën a jege pôle nord waaw mbirum yàlla la nag <laughs> mais boo xoolee pays yi gën a développé ci àdduna bi mooy pays yi nekk ci hémisphère euh, na laa koy hémisphère nord pays gën a sous-développé ci àddina bi ñoo nekk ci hémisphère sud mooy ci globe bi boo jëlee ci ci àddina bi ci suuf donc noonu la mbir yi tëdd te àddina bi boo jëlee ci histoire bon kii histoire la rek boo xoolee fépp foo dem dëkk yi li ci gën a bëri noor ak sud moom tout le temps day am tension ba ñun senegal bi sax boo xoolee rébellion bi ci au sud la am donc te yenn dëkk yi da ngay dégg Soudan du Sud Soudan du Nord Irlande Irlande du dëkk yi Corée du Nord Corée du Sud donc loolu peut-être ci histoire mbirum yàlla la mais à chaque fois nord ak sud moom euh, mooy loolu dafa yàgg am euh, ces ces tensions sociales ak distance yooyu disparité yooyu ak yooyu xam nga léegi développement ñu ngi koy natt ci ay objectif am na beneen boo xamante ne bu koy xayma mooy l'IDH ah bu moom la mooy indicateur bala gars yi bëri gën a di jël mooy indice de développement humain ñu koy natt ci capital capital mooy koom ñu koy natt ci niveau de santé ah wér yaram bi beneen bi ñu koy natt ci niveau d'éducation donc mooy mooy ñette yooyu noonu mooy jàng jàng bi ak jàngale bi donc fa la ñuy nattee ba xam dëkk développé na am kii boobu benn la ci mais ci PIB tamit dañ ko ci nattee dañ ko ciy dañ ko ciy boole donte duñ ko ci nattee voilà donc tey ci PIB dëkk yi dañu ne dëkk bi boo xoolee sur le plan dans la les services sociaux de base ba xam atteindre nañu les objectifs ba xam cent pour cent de la population ont accès à la à une bonne euh, santé maanaam plateau médical ak yooyu noonu ba xam cent pour cent de la population et, et euh, a suivi une bonne formation ba xam cent pour cent de la population euh, a, a une bonne formation euh, formation de qualité ba xam nit ñi jàng nañu dëkk boobu noonu nit ñi am nañu xam-xam tey boo jëlee Sénégal dañu ne 30 pour cent ñoo jàng donc sur 30 pour cent sur une population de 18 million dañu ne c'est donc Sénégal mënul nekk pays développé tey boo jëlee ñu ne en en matière d'espérance de vie donte Sénégal def nañ ci avancé bu kii tey on est à 67 ans en matière d'espérance de vie mooy plus ou moins tànn nañ mooy moyen bu gën a baax ci Afrique subsaharienne bokk nañ ci. muy 67 pour cent donte loolu tam dañ koy relativiser euh, parce que tamit mu ngi dépendre quoi mun na bañ a dépendre forcément ci niveau euh, fan la euh, développement baaxaay suñu suñu santé léeg-léeg nit ñi tamit mun nañu am des habitudes alimentaires yoo xamante ne yu tax ba dañuy gudd fan loolu dañ koy gis am na dëkk yu bëri yoo xamante ne médecine bi développé wu fa noonu mais nit ñi dañuy am benn Euh, régime boo xamante ne alimentaire bu leen di permettre ñuy gudd fan donc boo waree natt foofu loo ma tey les indicateurs là ay IDH ak yooyu noonu euh, di si basé wu trop trop trop pour euh, juger dëkk nii dafa développé sous-développé ak yooyu noonu quand même mënoo ci appesantir à cent pour cent parce que léeg-léeg nga dégg ñi joxee ay classement ci IDH yoo xamante ne c'est pas des classements qui transcrivent réellement Euh, maanaam niveau de développement dëkk par exemple tey Sénégal ñu dañuy dañuy am économie bu informel économie euh, boo xamante ne c'est à quatre-vingt-dix pour cent dans l'informel donc quatre-vingt-quinze pour cent sax ñeneen fa la ñuy dem donc boo jëlee Sénégal ñu ñuy fayloo impôt c'est cinq pour cent ci économie bi c'est cinq pour cent ñoom ñooy fay impôt par contre tey nga jël un pays comme la Suisse c'est un pays qui a atteint presque cent pour cent de de formalisation si si bépp activité boo fay dem da ngay dem nga formaliser wu ut statut juridique maanaam nga enregistré wu am ni ne registre de commerce comme tout le am na fu ngay toll tu commences à payer les euh, les impôts ça automatique par contre Sénégal tollooguñu ci niveau boobu donc développement fa lañ koy nattee tey la Suisse c'est un pays développé la Suisse est plus développée que la Chine te pourtant boo jëlee PIB Chine def na presque euh, est-ce que motul dix fois PIB sinon lu ko ëpp def na plus de dix fois le PIB Suisse mais Suisse moo ko gën a parce que Suisse tey population da ci joué richesse bu ñu am noonu richesse yi tax na dina gën a yomb nga répartir ko ci population pour atteindre les objectifs yi ñuy wax de développement maanaam tey Chine euh, Suisse ku fa juddu di nga jàng école par force di nga suivre formation tey ku fa juddu tey la santé am nañu des hôpitaux am nañu plateau médicaux yoo xam ne yuy doy tey niveau social tey l'État suisse dina mun a se permettre tey di di di dans le social tey mooy am ay programme sanitaire ay programme euh, de formation yoo xamante ne du ñuy jox na laa koy sax aux populations vulnérables et autres donc loolu fa la ñuy nattee développement donc boo fa tolloogul rek ñuy wax yow pays développé léegi avant développement am na émergence donc émergence mooy dëkk boo xamante ne tey génn na ci statut euh, pauvreté génn na ci statut sous développement mais mu ngi taxaw ci nouveau développement nouveau développement mooy dernière marche euh, dernière marche bu ngay franchir avant nga egg ci kii donc Russie fa la bokk Chine fa la bokk euh, dëkk yu bëri pays développé yi Japon États-Unis comment le dire Allemagne France ñoom ñooy pays développé la France est plus développée que la Chine te pourtant PIB Chine éco économiquement Chine moo gën a taxaw France voilà donc euh, loolu ci ay économique économiques yuy permettre rek ñuy utale ñu mun a ranger dëkk bu nekk fu nga toll ci niveau développement voilà donc loo mat a mënoo jugee ci pauvre rek nga dem nekk développé comme ñu bëri ñu koy xalaat dañu war a développé dañu war a développé développement dafa am processus déjà ñun ñu ngi ci pays dañu classé léegi jëlee ñu ci pays pauvre Sénégal tey fu mu toll nii en terme de classe euh, de classement ñu ngi ci les pays en de développement fa la ñu toll voilà donc mais dañuy continuer notre marche nañu évoluer mais classement xam naa du ñàkk di nga dégg ay classement IDH léeg-léeg da ngay dégg assemblée député yi ñoo taxaw Sénégal bokk na ci vingt cinq pays yi gën a pauvre waaw loolu classement IDH la te classement IDH boobu noonu euh, c'est cent quatre-vingt-neuf pays 189 188 pays ñoo xam ne ñu bokk ONU ñu bokk FMI bi bu ngeen di dëgg il sont au nombre de 188 188 donc classement bi c'est 188 pays la ñu defal classement en fonction euh, du niveau de développement tey ñu ne Sénégal lu ñuy nattee IDH classement IDH boobu euh, maanaam ci capital mooy ci économie dëkk bi nee nañu Sénégal lu ñu lu ñuy téye les chiffres yàlla banque mondiale téye luy tax ñu mën a natt Sénégal ci ci économie mooy cinq pour cent yoo xamante ne <clears throat> moom la ñuy imposer maanaam mooy ñu formel cinq pour cent ñoom ci loolu la ñu natt dañuy defar Sénégal calcul mooy agrégat économique yu ñu jël cinq pour cent la jël moom la ñuy defalee Sénégal calculum boobu mooy benn beneen bi euh, côté santé boobu euh, ñoom dañuy natt di xool ñaata Sénégal ñaata hôpitaux la ñu am en fonction des populations ñu ñuy répartir les hôpitaux ba xam nit ñi ci gox ak goxaan yi am na des infrastructures sanitaires yuy permettre a ce que les populations ñu mën a dem faju beneen bi ñu jël ñu ne euh, côté éducation ba xam école yi la formation l'enseignement et la formation ba xam nit ñi ñu ngi jàng ñu natt ñu ne trente pour cent de la population ñoo ñoo jàng la ñu mun a euh, euh, taux d' bi c' est pour cent donc tey bu ñu tolloo foofu ñoom loolu la ñuy nattal Sénégal mais Sénégal tey IDH ñu ngi koy noté entre zéro ak un donc muy zéro zéro virgule zéro virgule léegi plus ngay jege chiffre un mooy yow yaa ngi dugg ci rang wu développé. moins ngay plus ngay wàcc ci zéro ngay jege chiffre zéro mooy yow yaa ngi yaa ngi ci statut pays pauvre ou bien pays sous-développé noonu lañ koy nattee léegi classement boobu c'est zéro virgule euh, zéro un zéro virgule zéro deux noonu la ñuy compter ba un parce que euh, notation euh, par euh, chiffre décimal la donc tey bu bu ñu xoolee ñu ne Sénégal dernière note bu ñuy jox mu ngi zéro virgule cinq cent cinquante cinq zéro virgule cinq cent mooy la moyenne mooy yaa ngi ci digg bi Sénégal ñu ngi koy noteel tey zéro virgule cinq cent cinquante cinq en IDH mu occupé effectivement bokk na ci vingt cinq dernier pays ci classement bi mais dama leen di jox exemple bu gën a simple est-ce que ci classe mun nga jël mun nga jël mun nga bokk ci dix derniers yi mais nga am la moyenne est-ce que loolu mooy yow mënoo jàng non c'est exactement le cas donc dëkk yu ñu raw dëkk yooyu noonu dañu raw mais est-ce que le fait dëkk yooyu ñu raw la mooy yow pays pays pauvre nga non non non classement bi nit ñi jàngat bu ñu ci am moo moo xaw a dañ moo xaw a moo xawul na la méngoo ak lu classement bi wax parce que Sénégal da am moyenne zéro virgule cinq cent mooy la moyenne Sénégal am zéro plus de la moyenne ñu am zéro virgule cinq cent cinquante cinq xam naa ni ren moom par force dina dina ñu gën a évoluer parce que boo jëlee en terme de d'objectif Sénégal am teg nañu ay jéego yu bëri bëri bëri ci côté santé parce que inauguré nañu ñu xool boo leen ci bàyyee xel am na hôpitaux yu bëri yu ubbi ci diggante bi ñuy hôpital ci waawoon bi keroog maa ngi vidéo yi bu mucc ayib donc bëri na ci ay hôpitaux yoo xamante ne bu Ouro hôpital Ouro Sogui bi ak yeneen hôpitaux yoo xamante ne ñu ngi leen di tabax ñu ngi leen di kii loolu yëpp day ñëw dugg tey prochaine fois classement IDH bi gën na dañ ko ciy dugal ma jox leen benn exemple ci classement IDH la Chine boo xamante ne mooy première puissance économique mondiale mais ci classement IDH bi Chine bokkul sax ci dix premiers est-ce que loolu mooy Chine pays pauvre la non parce que IDH boo xoolee dëkk yi ci jiitu mooy dëkk yoo xam ne en général amuñu maanaam seen koom dëgër na mais par proportionnellement à la population Chine dañu am économie boo xam ne comme ñun type d'économie bala Chine am c'est une économie informelle Chine informelle moo fa gën am doole que le formel par contre dëkk ay Japon ay Suisse France Angleterre Allemagne ak yooyu c'est des pays yoo xam ne qui sont à plus de quatre-vingt-dix pour cent de formalisation donc dëkk yooyu noonu tey bu ñuy def classement IDR ñoom ñooy ëpp données ñoom ñooy ëpp tey lu ñu mën a téye des chiffres tey parce que dëkk yooyu noonu imposition bi dafa dox bu baax ba pare seen économie lépp lu ci dugg mën nañ ko xayma loolu lay développement donc dëkk bu la gën a développé ci IDR da raw mais du caage ne da bokk ci vingt cinq yi mujj mooy yow tu ne pas développé donc surtout boo mel ne ni Sénégal bokk nga ci mais yow am nga moyen mooy yaa ngi yow yaa ngi jege ci plus chiffre un que zéro am na dëkk yi nekk ci suuf yoo xam ne ñoo gën a développé ñoo du gën a développé ñoo gën a taxaw Sénégal euh, économiquement seen économie moo gën a diis économie Sénégal mais Sénégal daf leen raw tey dëkk bu mel ni Cameroun dëkk ay dëkk yu mel ni am na dëkk yu bëri yi nekk ci àdduna bi ñoo gën a euh, en terme de puissance économique ñoo raw Sénégal mais Sénégal moo leen gën a développé Sénégal moo leen gën a jege. développement parce que ñun suñu ressource dëkk yi tey le peu de ressources yu ñu am mais boo xoolee les efforts qui ñu koy tas ci askan wi lu coow lu bëri bëri critique bi bëri na ci gouvernement yi si jaar mais boo xoolee Sénégal nga comparé ko ak dëkk yu bëri yu ñu wër Afrique dëkk yooyu malgré di richesse lu ñu am mais tey Sénégal tey li ñuy def en matière def a matière d' objectif de développement jàng bi ak jàngale bi hôpitaux yi en matière d' économie tey poids économique ak yooyu noonu lu ñuy def lu ñuy jaay la transformation le industrie ak yooyu noonu mais Sénégal daf leen ci raw bu baax te pourtant dëkk yooyu ñoo ñu ëpp richesse <coughs> donc euh, di leen jaar bu baax a baax di jégalu ci gudd bi mais eh, xam nga rek dañuy bëgg explication bi gën a leer comme ça ñu bañ ci dellu si waat quoi yaa ngeen jëf. waaw monsieur waaw loolu tamit euh, lu am solo la fa la boo xoolee géopolitiquement actuellement fa la àddina bi toll États-Unis dañu participer ci première guerre mondiale ñu participer ci deuxième guerre mondiale États-Unis am nañu des guerres yoo xam ne yu ñu engagé mooy guerre Vietnam guerre Irak guerre Afghanistan ainsi de suite donc guerre yooyu noonu donte guerre nag économie la guerre économie la à l'époque les États-Unis pouvaient se le permettre avec la suprématie du dollar dañu doon dem créer ay guerre ñu tourner loo leur industrie d'armement parce que loolu mooy kii dëkk yi boo xoolee la course aux armements aujourd'hui fait rage un peu partout dëkk yi yëpp ñu ngi jël seen koom di ko mobiliser dem jënd ay armement dem jënd ay ay ay ay ay missile ay ma lan ak yooyu noonu ay avion de chasse loolu yëpp bu nga ko defee c'est pour préparer la guerre donc entreprise yi jaay yooyu noonu il n'est pas intéressant dëkk yi di ko jënd jënd te duñ ko utiliser donc il faut qu'il y ait une guerre guerre dafa bokk ci économie loo ma taxit euh, malheureusement parce que économie mooy demee noonu capitalisme maanaam c'est le capital à tout prix donc tey àddina bi il faut mu continuer am ay guerre selon nu àddina bi di doxee àddina bi day continuer am ay guerre soit ce sera des guerres par procuration comme ni nga ko waxee ni ba mu nekk des guerres yoo xamante ne euh, entre ñu jotee ñi ñi guerre mais guerre économie moo ci nekk parce que boo guerre bu amee rek ñuy defar usines yi defar arme yi ngay gis nii yëpp mais dañuy commencé bëgg a jaay te ñoom li ñuy defar noonu ba léegi lu may wax nii ñu ngi defar ay arme arme yooyu ñu koy defar pour lan la pour ay ay nit la te loolu arme yooyu dañ koy jaay pour mu jar il faut dëkk mu nekk ci menace wala mu nekk ci guerre pour mun ko jënd léegi américains yi nag ñoom fu mu toll nii ñoom vu def nañu guerre yu bëri guerre nañu guerre guerre ba toll fu mu toll nii ils n'ont plus envie de de faire la guerre mais système bu ñuy indi jamono bi mooy di financer des guerres boo ñëwee ñi def effort de guerre maanaam ñi lay jaay ay armes ñu lay jox ay kii ñi lay subventionné ñi ñi ñi lay accordé ay aide foofu la ñu toll foofu la àddina toll te ñu bëri Russie tamit moom lay def du États-Unis kese la Russie fait exactement la même chose lu ñuy def nii actuellement en Afrique defuñu ko pour le les les les beaux de des ces pays africains yu ñuy intervenir ay Mali yooyu Russie lu ñuy def nii ñu ngi tourner loo seen industrie armement defuñu ko pour pour pour jàppale kenn le président Poutine buñ ko falee ak léegi ñëwagul Afrique donc kooku noonu du ay affaire de africain moo moom dafa am ay industrie dafa am benn organisation militaire boo xamante ne c'est des gens seen liggéey mooy def la guerre ñi leen di fay mooy Wagner bu ngeen di dëgg donc àddina bi fa la toll économie nag dafa vaste y plusieurs types d'économie yooyu am am na le marché du blé am na le marché de l'armement am na le marché de de de des banques am na le marché financier ainsi de donc bu ci nekk dafa am solo ci réew am na dëkk yoo xam ne ils se sont spécialisés en en en à la fabrication d'armes looloo téye seen économie dëkk <laughs> donc àddina moo demee noonu mais guerre moom xam naa ni États-Unis gaw ma de sitôt ñu dugaat ci guerre parce que boo xoolee lu tax Chine def leen Chine bu ñu jugee ci guerre seen guerre euh, de colonisation yi ñu amoon noonu à mais Chine depuis boobu nangutuñu def am engagement ci benn front nangutuñu guerre a ñoom seen économie mu dox parce que tasuñu seen dëkk parce que guerre mooy mettre euh, sa tas dëkk tu vas reconstruire à la base ñoom loolu la ñuy bañ mais États-Unis day gëmuma ba xam dinañ ci dugal waaw club de pare mais ci euh, financier la agent financier la ñoom dañoo am xaalis dañu am xaalis bu ñu teg ñu koy label ay dëkk mooy lu may wax rek dañu bokk ci marché financier tey boo amee des projet les programme da ngay dem nga soumettre la ñoom ñu xool en fonction yow sa niveau euh, de euh, de développement sa économie fu mu toll ñi ñi décider de te confiance ñu jox la xaalis nga liggéey nga fay leen avec des intérêts donc club de Paris ci la bokk comme li ngay wax ni le fonds koweïtien ci la bokk le fonds saoudien ci la bokk le fonds qatari ci la bokk le fonds norvégien ci la bokk mais ya aussi des banques les grandes banques les Lehman Brothers et AIG ah bëri na ci ay ay banques yi mel noonu yoo xamante ne euh, dañuy accompagner des états ou bien des particuliers comme yow ak man ñuy am suñu entreprise bu taxaw ñu soxla bor mun nañu dem club de Paris et les hommes d'affaires yu bëri club de Paris mooy financé seen seen seen business nga dem foofu nga soumettre leen un projet bu ñu gisee ni projet bu pertinent la c'est projet porteur mais dañ lay dañ lay jox xaalis mais il faut nga am carnet d'adresse bu baax pour nga mën a de toog ak ñooñu nga mën a défendre un projet ba li mun a euh, accepter accompagner la sa projet donc yaa ngi wax eurobond eurobond ci la bokk eurobond boobu tamit c'est euh, benn fonds boo xamante ne bu ñu créer c'est pour maanaam euh, éviter lenteur ak la laa koy wax sax les restrictions maanaam barrières yu ñuy tegal par exemple tey les autres acteurs financiers yu ñuy tegal gaay parce que état yi pour ñu endetté wu léeg day jël di temps parce que lu ñu leen di tegal seen kanam mooy bëri de sorte que mun nañu ñëw ñu wax la par exemple tey yow tey un pays boo xam ne bu amul discipline de recommandation du FMI mun nañ la ko tegal mun nañ la wax par exemple ci yeneen dëkk dëkk yoo xam ne respecté wu ñu droit de l'homme maanaam foofu noonu euh, li ñuy bañ a tudd borom ñaari tuur yi léeg nga am na ay dëkk yoo xamante ne foofu gars dañ leen di téye di leen di daggati comme ni ko ni ñu mérité nag mais boo xoolee dëkk yooyu noonu gars yi ñu bëri léeg-léeg am na ci yeneen euh, na laa koy wax sax euh, société financière yi ngay dem mais dëkk yooyu noonu ñoom dañu ne duñu lebal dëkk yooyu xaalis parce que c'est des pays où on respecte pas les droits humains donc loolu yooyu absage eurobond looloo ko tax a parce que eurobond dafa départir ci loolu noonu yëpp li ngay dégg maanaam ñoom bu ñu ñëwee dañuy xool l'aspect purement l'aspect purement économique sa dëkk sans pour autant tegal la ay obstacles ni respecté woo lii respecté woo lii ñoom li ñu xool ba xam t'as une économie solvable ba xam yow am nga capacité de remboursement ba pare ba xam sa dëkk am na liquidité maanaam sa jënd bi ak jaay bi donc euh, sa balance des paiements mu ngi au beau donc ñoom loolu la ñuy xool après ñi dem xool ci société d'annotation yi mu la doon wax noonu moo Ibrahim Standard and Poor's euh, na laa koy Fitch Euh, ak euh, euh, na la beneen bi sax fàtte naa nu mu tudd Moody's donc ci yooyu la ñuy dem xool société d'annotation yi ñu noté sa économie et en fonction de la pertinence des projets yi ñu leen tegal par exemple le TER ci eurobond moo tax ñu am ko ñi def Sénégal def ci négociation bu mucc ay le TER donc ci eurobond dañuy lever ay eurobond pour mun ko am premier eurobond ba la Sénégal Sénégal bu ñu yóbbuwee PSE bu ñu koy yóbbuwee ci ci kii donc dañu soxloon dañu amoon un besoin en financement de cinq cent milliards mille cinq cent milliards pour financer le PSE mais bu ñu demee avec la pertinence du PSE Sénégal trois mille milliards lañ leen jox au lieu de mille cinq cent premier eurobond bala Sénégal njëkk a levé trois mille milliards lañ ciy jëlee donc ce qui a permis tey ñu financer euh, nan laa koy wax sax première phase PSE boo xamante ne tey ngay gis autoroute à péage ci TER bi projet yu bëri yi ngeen di gis nii les les routes euh, nationales du Sénégal loolu yëpp mu ngi jugee ci plan Sénégal émergent boo xamante ne les partenaires financiers ñoo ko kii à travers l'eurobond euh, eurobond yàlla Sénégal levé donc entre temps levé nañu ñu eurobond yi ñu jot a kii donc eurobond looloo ko tax a jóg globalement de façon terre à terre lu mu mën a expliquer pour nga mën a comprendre donc euh, dafa bokk ci acteurs financiers agents financiers donc ñoo xamante ne dañuy financer les états sans pour autant ñu leen di tegal certaines condition yoo xamante ne peut-être de l'autre côté le le marché financier ñuy gën a sonal les les les états. waaw Modou Bousso maa ngi lay jaar bu baax a baax je sais que am jàmm <laughs> waaw merci beaucoup waaye merci beaucoup euh, am na ci na solo jàngat buñ ñu ci def am na solo euh, am na solo bu baax a baax a baax léegi lu ma ci mën a yokk rek xanaa. <laughs> mooy comme li ngay wax noonu dette interne ak dette externe mais bu ñuy boolee euh, mooy pourcentage euh, endettement Sénégal dañuy boole lépp ñuy séparer la dette interne de de la dette externe dañuy ne Sénégal dafa endetté wu à hauteur de waaw mais dañu ne temps ci euh, kii donte boo demee def des études beaucoup plus approfondies mun nga gis fu ñu ne dette interne bi lii la dette externe bi lii la mais lépp tout compte ak det la rek waaye état du Sénégal bu lebee benn société financière nationale sénégalaise da koy fay comme nu muy fayee tubaab bu mu leb fayee bu bu nekk Singapour donc bor bor la rek voilà nu ngay lebee eh, bor mu ngi ci somme bu ngay leb mooy le principal après mu ngi ci intérêt intérêt bi boobu tamit da koy fay danga ki tu tu tu payes en payant les dettes tu éponges l'intérêt et tu éponges le principal mooy ñaata nga la ak le l'intérêt les intérêts qui suivent loolu mooy bor léegi peut-être au niveau national di nga xaw a am beaucoup plus de facilité maanaam d'endettement parce que peut-être barrière yàlla lañ lay tegal ci marché financier international peut-être au niveau national banque yi ak euh, les sociétés financières yu nekk sa dëkk duñ la ko teg loolu mun na nekk mais hormis cela boor bor la amul benn différence da ngay remboursé échéance yi da ngay remboursé d'ailleurs sax pour dette interne bi échéance yi ñoo gën a gàtt parce que ñu lay lebal au niveau interne amuñu même euh, na laa koy wax sa capacité financière que par exemple tey le club de Paris ou bien le fonds saoudien ñële ñoo leen ëpp euh, doole fuuf donc ñooñu luñ la mën a muñal ci vingt ans tey au niveau interne ñu lay lebal xaalis mënuñu la ko mu muñal ba pare Japon yaa ngi wax ñu ñu leen di leb seen dette interne moo gën a bëri mais le Japon boo ko jëlee proportionnellement ak yeneen dëkk yi ñuy wax yu endetté wu ci biti Japon moo moo leen ëpp fuuf dette loolu xam naa ne peut-être da nga ko xaw a biaisé ci sa analyse ak euh, ak noonu bon ci loolu laa la mën a tontu tu crois leneen li nga wax ci affaire plafonnement bi ngay wax moom laa ma ne plafonnement bi maanaam c'est pour pouvoir gérer maanaam am na économie yoo xamante ne il faut ñu limiter li ñi plafonné la loo ma tax boo fay jegee dañ lay arrêté ñu ne la ah yaa ngi flirter ak le plafond commencé wàññi li ngay ànd teew nga changé nga soit bu fekkee da nga soxla des rent de fonds maanaam pour développer sa économie am croissance euh, côté na nga tourner ci côté fiscalité plus que sur les investissements les grosses œuvres ak yooyu noonu loolu foofu la ñuy nattee le temps nga mun a wàññi sa service de la def nga mun a rembourser rembourser après nga mun a continuer la mais tey am na fu ngay toll ci économie fu ngay taxawee tu peux le dépasser mën na la du mois kese moo def plafond FMI am na plafond te plafond boobu noonu dañ ko exiger France dañ ko recommander France dañ ko recommander Japon dañ ko recommander états uni ñëpp mais ñoom dañ ko bu ñu ñëwee toog ak FMI dañ leen ne le plafond de soixante quinze pour cent d' endettement bu ngeen ñu wax xam nañu ni moom mooy le plafond bu ngeen euh, teg sur la mais ñun fii la ñu toll am nañu capacité de remboursement mun nañu fay suñu def parce que am ñu lii ak lii ak lii ak lii lu ñu téye les leviers économiques yu ñu am suñu dëkk yu ñuy permettre ñu mën a fay suñu bot ba la la dette là ne sera pas un fardeau donc loolu mooy différence mais ñun amuñu argument pour dem au delà parce que tey boo boo nekkee au delà FMI bu la ne ah yaa ngi jege soixante quinze pour cent mënoo ko passé lan ngay wax FMI non am naa capacité de remboursement bu may permettre moo au delà boo ko amee nga tegal ko sur la table dañ la koy nangul soixante quinze pour cent la ñuy waxoon Sénégal tey mu ngi ci soixante seize pour temps te pourtant UEMOA soixante dix pour cent la Sénégal jéggi na ko euh, nan la turaat FMI soixante quinze pour cent la waxoon Sénégal mu ngi ci soixante seize pour cent mooy FMI xam nañu ni Sénégal. tey en douze ans mosuñu am défaut de paiement mosuñu am retard donc où est problème la mooy problème mais xam nga loolu li may yi à chaque fois rek gars yi dañuy xaw a am problème ak <laughs> ak bor quoi lépp <laughs> waaye lépp lépp dafa baax dafa baax dafa baax